affaire génération bi sonal nañu man boo xoolee mag laa depuis man nekk xale ba léegi loolu la ñuy dund. kanaal yi def nañ ko fi mais kanaal yi amut benn njëriñ centrale bu mag ba boo xoolee day fees ba loger ba sànni yeneen côté yi kër yëpp ñu fees ah ñun sonn nañ bu ñu dimbalee ci loolu tamit dina baax parce que loolu ay année année année ñu ngi koy dund gars yi fi jaar yëpp dañuy def travaux yi mais après travaux yi zéro lay doon. boo xoolee kanaalu Grand Yoff yi yëpp a fattu nawet ba nawet lañ koy jéem a débouché fay ay gaa ñu débouché ko te pas tellement bi du demee noonu sonn daal boo leen ñu ci mënee jàppale ngeen jàppale ñu ci parce que Grand Yoff nëgën nii ndox waru fi woon di traîner waaw parce que ñun ñu bokk ñu njëkk a sanc di am problème mu ndox ci lañ bokk. travaux yi bi mu commencé ñun la ñu waroon njëkkee mais boobu ba léegi mbaa paa ba pare amuñu roo central ndox bu nga xam ne lépp dina mën a verser biir Grand Yoff boo xoolee kër yi day fees ndox yi day taa koñ yi day fees day désordre day salté Grand Yoff bu tawee dootoo fi sax bugg di yeewoo bu ñu mënoon jàppale si ndox mi daal mooy gën waaw parce que autorité autorité yi fi nekk tamit boobu ba léegi mais duñ leen duñ leen ŋàññi ñu ngi liggéey mais tamit ba tey des na quoi waroon nañ am force bu nga xam ne nëgën nii Grand Yoff du mel nii parce que man fii laa juddoo fii laa yaroo fii laa màggee mais ndox laay dund ba léegi te maaye buggu âgé bu commencé taw moom liggéey bi day taxaw te wérgu yaram bi wax dëgg yàlla day doy waa xale yi dañuy feebar picc yeeg yooyu dëgg yàlla dañuy jànkonteel maa ngi ñaan ci autorités yi daal ñu ñëw saafara ni comme inondation yi ñu ñëw jàppale ñu si canal yeeg yooyu ak wérgu yaramu xale yeeg mag ñi. te ñun ndox mi ñu daan gën a sonal mooy ndox mi jóge escape urbain bi ne la wàcc si fii parce que bu doon ndoxu grave kese la du ñu am problème mais ndox mi jóge ci cité nouvelle yi fële wàcc fii moo ñu daan gën a sonal. moom jafe-jafe yi ñu am mooy suñu kër yi day day inondé yëpp ay fees ba fii ngay mu wax ak yow gis nga li ñu def nii day fees del kooku moom jafe-jafe moom tàmm nañ ko moom chaque année depuis 68 ñun ñu ngi grand 68 laa ñëw grand mais 68 ba léegi chaque année day inondé. commune bi de mu ngi def effort ndax commune bi au moins canaux yi fi nekk yëpp commencé nañ di leen di nettoyer mais xam nga rek commune rek doyul état bu si gënoon jàpp tam day gën a baax rek mais commune bi kese doyul. bon actuellement zone de captage bi tam gis naa fa ñu ngi ko yóbbu ay machine machines yaa ngi foofu di drainer pour. désable kii bi quoi peut-être cette année ñu ngi ñaan yàlla que mu bañ a mel ni année yi passé daal autorités yi moom buñ ci gën a mën a jàpp parce que commune kese mënul def lépp quoi ñoom tam ñu ñëw indi seen benn apport jàppale ñu jàppale commune bi population bi aussi tamit jàpp si parce que kanaal yi aussi buñ ko nettoyé ba mu set bu ñu xëyee di ci sànni ay xar yu dee ay mbalit ci biir canal yi kuy romb dem xëy suba teel jël sa mbalit sànn ko ci biir canal yi canal yi bu bouché tamit ça ne va pas de notre intérêt loolu moo ñu gën a sonal parce que dañuy nettoyer commune day nettoyer nga gis ku xëy nii di liggéey yore mbalitam ñëw ba ci canal ba sànn ko foofu dem bu bouché tam problème am ndox mi dootul mën dem donc état da siy jàpp mairie bi jàpp si population bi tamit jàpp si. bu nawet bi ñëwee ñun moom dañu am problème ndax dañ bëgguñu sax mu teel ñëw. ndax saa yu ñëwee da ngay dégg Grand ay moor ndax ndox bi dafay bëri bëri da boo xoolee ay euh, Liberté 4 ay Sacré-Cœur ay Cité Mène ay Nord Foire ndox bi yëpp fi li nga indi Grand ndax ñun ay baadoolo lañ moo tax ñu indi fi ndox ndax am na euh, boo génnee sotti cité bi am nañ benn branchement bu ñu fa def branchement bi fii lay ñëw da branchement moo ñu jigee ba Ouest Foire gars yi branche pour mu ñëw Grand Yoff nawet ñun dañuy sonn nawet Grand Yoff day am ndox day fees del del day am ay moo tamit. nawet bi waaye bi waaye ñëw ñoom dañuy indi envoyé quelques personnes ñëw nettoyer canal bi ay quelques personnes lañu fi envoyé ñu nettoyer canal bi ministre bi bu waree ñëw ñu ensonné bi ministre bi demee ñu arrêté nettoyer ndax ñoom fi ñu nekk dafa descente ndax camp ab si camp lañ ne bu ñu yokkalee ay pompe ñu dañu dinañ kontaan ndax pompe yi foog mu am doole ndax euh, daaw lañ fi yokkoon quelques pompes ndox bi teewul ba léegi bu ñëwee day des. ñu sono état bi mu dimbali ñu bu baax teel ñoo préparé pompe yi ndax nawet baa ngi ñëw. ndax tamit doo bàyyi ba nit dee nga bu fi indi ay ay ay pompe ndax ñoom chaque fois noonu la ñuy ñëw chaque fois bu nit dee rek lañu fi indi ay pompe gis nga fii yëkkati nañ suñu kër gi teewul ndox mi day dugg gis nga fii bu ñu yëkk bu ndox mi tawee dañuy yëkkati wax beneen birig teg fii ndox mi day dem ba ca tali ba ñun daal sonn nañu jaaxle nañu bu ñu amoon ko ñu ci dimbali ñu jël waaye chaque année la même chose lii la ñuy dund bu du ñu génn du ñu dem du duñu def dara tànk ndox mi jeexul. ñu nag ndox mi ba nawet bi jeex ñu nag ndox mi bu tawee mu fees ñu tëj toog ba mu kii ñu dem ñun daal ba ñu juddoo ba léegi gisuñu benn changement lii rek li ñuy dund.